Salut chers internautes et amis de Sénégal 7 asalaamaaleykum yéen nga xam ne yéen saaxo di suivre seen chaîne bi di Sénégal 7 euh, tey na dañu mbégte dem seeti koo xamante ne kenn dootu ko présenté waa Sénégal kooku nag du kenn ku du Soda Samb du defal lu nuyu ko bàyyi ko nuyoo ak internet yi balaa ñu tàmbalee solo lan ngay reetaan nuyoo ngay ree salaamaaleykum jaar yi maa ngi nuyu suñu mbokk internet yi ñuy seetaan yëpp di nuyu ñu nga fi ànd di nuyu Sénégal bi di nuyu sa fan si. di sama fan si di nuyu may toog di nuyu àdduna te àdduna yi siiw Soda Sam donc maa ngi àdduna yi. Mhm. kan mooy Soda Sam. bon tey danga may wax ci yow. <laughs> Soda Sam comme tu connais benn nit la rek. Mhm. benn benn benn femme. Mhm. une personne voilà free. vraie directe. travailleuse. Mm-hmm. une personne sans sans stressant. kooku mooy mm-hmm. firi direct wax ñu ci direct bi. bon direct parce que ñëpp dañuy wax ne solo Samb dafa ñeme wax. loolu lan nga ciy tontu. bon Soxna Samb lu nit sañul wax yow yow ngay génn wax ko voilà. bon Soxna Samb dafa ñeme wax bi pour man euh, c'est pas boo xamante ne nii. nit ñi dañ koy laam-laamee wala dara parce que sama ñeme wax. Mhm. juste dama nekk nit boo xamante ni dama direct parce que ci loolu lañ ma yar. Mhm. Mhm. ma yar ci dëggu dañ ma yar ci wax lu ma ko a wax. et je pense que bu ñëpp meloon noonu kenn du sonn. peut-être loolu lañ naan soo de sàmm dafa ni ma wax. dama direct rek. dama direct et que damay bañ ñu may limaale ci yoo xamante ne nekk ma ci. loolu kese la. mais direct boobu nga direct est-ce que yomb na ci yow soo de sàmm. bon yombul ci man parce que Sénégal boo directeur dañ naan dafa réew. ok Sénégal boo directeur dañ naan dafa. ah parce que sénégalais bëri loolu la ñuy wax soo dafa réew. dafa vulgaire moom dama koy jël amuñu ma ci problème. Mhm. damaa réew mais du ma tooñ. ok te bu fekkee dugg mooy tax. mais des fois nga tooñ des fois nga fekk waxu jàmm nga ñëw dugg si. ah. déedéet seen la direct de dañ lay seen direct Rox. waa Rox sama xarit la. <laughs> non Rox la chancelière kook sama xarit la di ko nuyu encore bu baax a baax. Mhm. kooku sama xarit la kooku sama sœur la. Mhm. kooku daa gis Soda Samb bëgg ko ma gis ko delloo ko ko. du mhm. dëgg mhm. mais n'empêche ku ne xam na ni Soda Samb kaawul. man du ma kaaw. mais di nga dugg ci kaaw jaam. non non non sama kat newul ci kaaw jaam. ah bien sûr. léegi yow rappelé ma fan laa dugg ah, ah dañ lay gis dañ lay gis ci kii bi de live bi ah, live bi dañ la ban séen de. sooda nangul rek nangul ah dugaluma la. mbir nga loolu dañ lay séen dañ lay séen ci kaay. waaw li wax li wax leer na de. dañ may séen ci kaay. waaw mais est-ce may dégg ci kaay. Mhm. séen ci kaa bokkul ak dégg ci kaa. Mhm. kaa nag bu amee bu ma ci laajee. Mhm. am naa droit jaar ci digg bi. wax lii dëgg. ci deux camps yi ka mu nekk group ka mu nekk ñaar nit ku nekk ci ñoom ñaar li nga xam ne carrément solo ressemble mais li mu wax dëgg la. soit danga koy nangu. en secret. wala soit nga riposter. Mhm. mais cas bu ma gis ni ma bu ñu ma gis ma dugg ci. Mhm. xamal ni dëgg bi laay wax. Mhm. je dis les choses telles qu'elles sont. sans pour autant penser que dina blessé nit. ba ñu dina ci gis boppam. mais loolu mosuloo ci am problème. non mosuma daal. comme nit wala lu tax ngay dugg ci samay wax lu tax ngay. ay jaari ki may njëkk woon ne ma solo lu tax nga dugg ci samay wax kooku yërëm naa ko de. kenn wowagu la. mais ki la nara woo nga yërëm. te kenn du ma mos a. yow da du menace c'est loin de menace mais nga war a yëkkat sa téléphone rek allo soo sax mu ta nga dugg ah waxuma du am de mais ñu dem xol mais yaay tooñ du ma tooñ jaare ah mais loolu tooñ la waxu jàmbur nga dugg si sooda sood sëriñ baaba kese du ma tooñ barki maam xalifa du ma tooñ mënu ma tooñ sax mënu tooñ ndax déjà du luñ ma du luñ ma yaree mhm. du loo xamante ne nii moom moom moom laa mooy sama environnement moom laa dundee suñu biir kër. Mhm. parce que comme tu viens de voir. Mhm. ñun on mhm. ma yar diina ak kurus la macha allah xamul tooñ. macha allah donc yoruma ki tooñ. ci sama maam. sànq yaa ngi wax ni da nga direct. yaa ngi wax ni da ngay wax dëgg. maanaam boo fekk dëgg da nga koy wax. mais est-ce que jàpp nga ni Rox. sa xarit la yow yaa wax ni sa xarit la sa doom ndey la. jàpp nga ni li muy def. Euh, est-ce que c'est normal est-ce que des fois di ko woo moom di ko wax dëgg. waaw Ross bu ma ko dee woo di ko wax dëgg lu ma koy wax. mais parfois le fait que muy jël nit ñi di leen kaa di wax. ci ñoom comme comme comme comme comme moom ak maam Ndiaye gis nañ la xëy récemment. mais moom ak maam euh, Ndiaye man pour man ñoom ñaar gis ma fa problème au contraire. nit ñi nga gisoo fa problème. merci beaucoup man pour man Ross ak maam Ndiaye man gis ma fa problème man xamal lan laa gis que ni ñiy langaam ñoo fa indi problème. maanaam xanaa xamoo ne euh, jaari internet garaawul xam ñen ñoo garaaw. Mhm. comme ñiy commentaire. ok ñu nekk ci kaw panel. Mhm. ñooñu garaawul ñu nekk ci suuf te kenn xamu leen. Mhm. affiché wuñu. kenn dugguñu ci live génnuñu ci live ñooñu ñoo garaaw. ñooñu ñooy problème mais pas ñun ñi nga xamante ne ñu ci panel yi wane suñu bopp xam nga tey Rox dugg na via TikTok la nit ñi xamee Rox. à part avant TikTok amoon yeneen réseau yi amoon. te yaakaar naa ne bu may woo rox man téléphone ne ko allo mu ne ma allo ma koy conseil dama koy conseil ci loo xamante ni dafa saa nit mhm. maanaam nit woo ko wax ko ci biir yow mhm. mu wax si mhm. wala nit woo ko ñu sëkkërante ñoom ñaar mu ŋaang mais bu ngeen seetloo rox lu muy kaar day fekk ne mu ngi ci kaw taal ba pare nit ñi ñu ngi koy wax la yoo laam laa mee ki suuf moom wax ko ci kaw donc kooku soxlawul conseil pour man parce que ku ne carrément mais ba faa da ci ñàmbaas ay affaire yoo xam ne tamit mooy loolu de. mais ku ne moom day kongo saa moom li leer na de. dégg nga ne day kongo saa. day day kongo saa day kaa ba mu neex. ok kon kooku du yow man maa koy conseillé. Mhm. peut-être moom li mu nekk di ko def bis bu ko ñoree bis bu bëggee arrêté dina arrêté. Mhm. mais ñi muy kaa fekk na ñoom kaa nañ leen ba pare moom dafa càmbaas dafa ñàmbaas rek joxe ci tuuti ndaw talam. tuuti waaw ok problème am ak maam Ndiaye waxuloo ci. problème ak maam Ndiaye man problème ak maam Ndiaye bi. jaare man comme tu le man dara dina xew ba jeex ma koy doog a yëg ndax mhm. damaa ñëw ne loolu ba peer ni ma yëg bari man damaa nelaw ba peer. si <laughs> <laughs> mhm. waa kër xam nañ loolu man li ma yëg bari mhm. mais yow da ngay tëb rek wax. waaw waaw ah, da ngay yeewu rek commencé wax ay bal. waaw man Ndiaye man pour ma roog sa am na droit conseil man Ndiaye ne ko da ngaa jum ci communication. amu ci droit. am na lu tax nga ne am na ci droit. jërëjëf maam viam mu ngi dans la toile. Mhm. maam Ndiaye ku xam maamu mhm. ndaw xam ko ci wax. ku xam mu ndaw xam ko ci kókkali xam ko ci tooñ. lu mhm. dëgg. donc euh, pour man ak ni maam mel ak bébé waroon naa mën a am tuuti kersa. comporté woo ñenn ñi même bu fekkee ki mu jaay da koo jaay ay ma sama sama xalaatu bopp laay waxee. ok. ci xel mu sell la ñuy waxtaanee. Mhm. Sénégal nag dafa nakkaree waxee ndax boo waxee dañ koy yóbbu fële. c'est mais man li may wax amu ci benn problème. Mhm. du tere mu koy wax. Mhm. mais pour man jaari man ak yow. or saa on est des donc man du ma fekk loo xamante ne am na lu fay ñëw ba pare. may jéem a am nu ma la intégré ci loolu noonu. ba ji la blessé yow. comme que am na pour man rox am na droit ni maam da def erreur de communication. waroo woon doxalee nii. Mhm. ndax xale bi dalaa bëgg nangama nangama sàngam. Mhm. pour man maam waru woon riposte. Mhm. képp ku képp ku ko bëggoon moom képp koo xam ne bëgg na ko. wala mu di ko topp na koy topp ci dëgg na ko a ah, nee ba ne wax ma nga def erreur de communication. waroo woon defee noonu. boo léegi bu mu la dalati bu boobaa moom amoon na droit. wax expliquer ni lii ak lii ak lii moo tax. Mhm. mais est-ce que du tamit ku ci ne sa intérêt ngay xool rek parce que gis nañ tamit bébé Eva léegi mu ngi def pub ak euh, Eva séduction est-ce que du loolu tamit. mais est-ce que nekkul mais maam ma yaakaar ni problème mu maam ak Rox moo juttu. si Eva séduction ak ak Eva mhm, si. voilà donc xam nga kon ku nekk sa intérêt boobu ngay xool noonu. Mhm. maam mu ñu ko def après bébé Eva maam mu ëpp tur bébé Eva. mais est-ce que fayantoo loo fayantoo yooyu jar na ko. sóore man man sama gis-gis jaral na leen ko ñoom mais man Samb jaral na ko nit ku ñoo xam ne nga def li xam jaral na la ñoom peut-être loolu ñu def ñoom ñoom jaral na leen ko mais doon xalaat ku ci nekk yaa ngi toog ci sa ko di ko ruq ba mu nooy. Mm-hmm. ah mais yàqante bi biir TikTok nan nga ko gisee Soda. bañ parce que tamit tiktokeuse nga doo ko bañ. duma tiktokeuse. tiktokeuse nga doo doo ko bañ da koy bañ mais loolu da nga koy nangu parce que tiktokeuse nga. jaaree bi ma ñetti yoon nga may interroger di ma wax tiktokeuse nga. tiktokeuse nga da ngay nangu tiktokeuse nga. billaay dama ko nangu bien sûr nangul rek. du ko man la moo tax bëgguloo nekk tiktokeuse. parce que bëgguma ko. lu tax lan moo ci nekk ban jikko moo ci nekk. jikko yu sew jikko yi ku ci nekk sa intérêt nga jaam jikko yi ku ci nekk da nga bëgg gën a kawe sa morom. Mhm. fii ku nekk sa bidéo nga yore. Mhm. ku ci nekk rek sa bidéo nga yore. Mhm. tey jaar téem ñàkk téeméeri tiktokers ñu ci tiktok bi. Mhm. mais ñun Sénégal ni ñu mel. benn réew melu ko. benn réew melu ko man tout le dama naan carrément bu ma jomaa meewoon toq rek jox ma doq Sénégal doq li rek. doq Sénégal doq Sénégal rek. ñun dootuñu tiktok tiktok day génn Sénégal ñun dootuñu ci bokk. mais est-ce bu TikTok bi tax est-ce que dinañ leen gisati tamit. est-ce dinañ dinañ ñu gisati. waaw mais jaari man ba ma nee euh, par exemple man Instagram laa njëkka a bëgg a TikTok. Mhm, dëgg la. ñu bari Instagram da nga xamee solo sàmm. Mhm. sama vidéo yi nekk TikTok yëpp Instagram la njëkk a nekk. Mhm. jamono boobu la Instagram di Instagram parce que Instagram abonné am abonné Instagram gis nga xam ne jaari ñu nekk ci 1 million d'abonnés via TikTok. 500000 abonnés. dix mhm. cent mille abonnés. Mhm. am nañu sax dix mille abonnés allah. vingt huit ñoo la sénégalais ñoo la bëgg. parce que sénégalais ñoom dañuy bëgg Soda Samb. Mhm. comme man man bu toog amul woon sama gat. <laughs> nga <laughs> ba tey baax na mais dama la laaj lan nga gisee TikTok bi. yàqante bi biir TikTok. mais dama leen est-ce que loolu rafet na. mais dama leen di gis ay ñaaru jigéen yi yàqante wala mariage yu jàmbur ñu dugg ci wax ci ay wax yoo xam ndax ci ay bal nan nga gisee loolu. soo def mariage jàmbur tamit ñoo rek seen mariage ak jaar. ma mariage jàmbur yi. ñoo yem seen mais ñu ngi yem seen mariage. ay nit bu ñu siiwee. bu ñu marié boo ci mënta wax bu lu baax bu ci wax lu bon. mais yow imagineel nit. nit taq nit taq nit ah. ah après ñu génn naan diw la doon génnal ak lii la doon génnal ak yi mais loolu lu mais loolu loolu loolu sooda loolu dan nga gisee loolu tamit sooda solo sa rafet na dama ni la <laughs> doo ma dugal tudd ma benn mariage de xam nga lan nga wax tiktok bi nga dinaa ko dóor tiktok bi nga may wax la yàqante bi nga may wax lépp lépp ci tiktok bi lay xewe lépp gaa yëpp biir tiktok lañ koy xamee moo tax ma laaj la loolu man daal boo wax bëggee dégg dëgg xam nga la moom ma metti mm. yàkkante bi ñu yàkkante entre femme ak femme. ah ba tey loolu laay wax de. yàkkante bi ñu yàkkante entre jigéen ak jigéen pour man war naa mën a ñaan. comme mu ci jaaykat yi. comme mu ci mariage yi. comme mu man xamal jaar da laa bëgg nit ñi comprendre ko. Mhm. une bonne fois ba tax bëgguma nekk tiktoker nanguma koo nekk. te mhm. nekkuma ko. Mhm. mooy. ku ne sa wërsëg ngay lekk. c'est vrai ku ci nekk sa bëdoo day tàkk. jaar tey année bii mun na nekk maam l'autre année mun na nekk mami après mën a nekk kan euh, turba ci kelaw bi mhm. mën na nekk ajimaas mun na nekk ndayaa bute mhm. et cetera et cetera et cetera day jubal mais mhm. ku ci nekk di nga fay pourtant Soro Samb dëbboon na Sénégal 2020 pourtant taaba tey yaa ngi koy dëbb dëbb 2021 da ngaa fay nii dëbb 2022 ah, jaafa na nga fay guma sax tàkk li ma gis ci tàkk jigum lu da nga ne tàkk jigul ma ku tàkk génne la ay bal Mm-hmm. man sama maam daa gaaw ko xam. Mm-hmm. am mm-hmm. di ko moo tax bëggoo tàkk. kon est doo bàyyi direct yi. direct yi ngay dugg kon est doo ko bàyyi. du ma mës a bàyyi. ah kon kay yow koy bëggoo fay nag. xam ma mës jaar yi boo seetloo baa xam nga ni man doo ma gis ci téeméeri direct ji. man direct bi nga may gis sama toog fa yàgg fa direct rot leen xam nga lu tax ma ne ñaar dof lañ ñoo benn benn benn bi ñu nekkoon ci dof yi. centre dof ah, centre fan wala kii. yow Roxa. Ah? maa ngi dof la. ah ok dëgg la. ñoo bokkoon fi ñu teewoon mais moom xam nga moom dafa ma ne ma doon takk. mais dof bu doon dóoree nga. moo tax kaa bi loolu kese la. Mhm. mais quant à li ma bëgg man nañu comprendre ko surtout ñun. Mhm. nga xam ne ay jigéen lañ. Mhm. te toog day jeex. Imo amoon na fi. Mm-hmm. Skype amoon na fi. Mm-hmm. amul benn site bu fi amul woon Facebook waxi nopp. te mm-hmm. pourtant Facebook ba tey mi nga dox mais li fa nekk newul fi. pourquoi ñun TikTok ñun ko def mm. ko bëggul bu ko bëgg. parce que nag tey kenn mënul force nit ne ko kaay par force da ngay bëgg jaari. loolu mënul nekk. mais boo bañee nit ki ba ko bañ ko ci simplement. mais parfois ñu sosal la sax. waxal la ay wax yoo xamante ni ku ko dégg. daw maa gëm ma ni jaaree xale yu jigéen nekk ci togge bi kenn amu ci man ak samay morom laa la wax amuñu far bu dëgër. ndax la daw ndax la. mais ku ñëw daw. mais am na ñu ne ma am na ñu ne yow da nga marié. dama marié. xanaa sama maam ma takk. ah, ah naa ñu ne la takk takk suuf. dégg ma takk takk suuf. waaw lu dëgg yaa ko créé. créé wu ma ko. sénégalais yi ñoo ko wax man laaj la nga ne man maa ko créé. sénégalais nee maa takk takk suuf. waaw. ah man de kon ki may seetlu manqué ki ma takk maa ngeen ne de man daf bi lay takk takk suuf. <laughs> xol takk ma takk kaw ma takk suuf <laughs> ma dama daan ngéb de jongo ma laa de lu ma dee jaaxal de. kenn takk ma takk suuf yaa ko créé. wu ma ko dañu dañu wax ma laaj la dañ ko séq ma lay laaj pour mu leer. nee leen pour mu leer Sénégal ma jàkkaarloog sénégalais nga wax leen. yi kenn takk ma takk suuf. Mhm. wéruma dof laa ku may takk kaw nga may takk hmm? mais fi nga doon wax sax am na important de continuer yàlla baax na Soxna Samb nga nekk ci TikTok bi lan nga ci dund lu la gën a metti li ma ci dund lu ma gën a metti mooy harcèlement bi ñu lay harceler genre les gens harcèlent lu tax ñu lay harceler doo mën a xam raison mais nan lañ lay harceler jaar yi ba ma nekkee TikTok ba tey du ma ne dund naa fa du ma ne mosuma fi dund lu neex si. Mhm. ni ma dundoo lu métti ci TikTok noonu laa dundee ci lu neex. TikTok mhm. maa donné des frères et mhm. am na ñoo xam ne TikTok nga leen xam xamee. lu barki alxuraanu karim. macha allah. am na ay nit ñoo xamante ne nii damay jaar ci seen tur directement. muy Zaïd Moustapha. Kumbista. Ramichou. Damas. Sali. Penda. aboli. Mhm. TikTok laa leen xamee. Mhm. mais c'est les personnes yoo xamante ne bu ma bu démb doon tey dama doon ñaan yàlla ma gën leen ma gënoon leen a teel a xam. macha allah ndax rëccu ma sama xamee mhm. les personnes yoo xamante ne ils sont toujours là. muy Rose Zaza muy Perfect muy Largina. muy Ndeye Sakho. c'est yoo xamante ne man bu ma sañoon ma leen teel a xam. mais ci ginnaaw loolu noonu. su ma nee dañ may harceler. jaar yi man ñu ñëpp dañoo teg suñu panel di liggéey. Mhm. man dara tut samay laaj bi lépp damay toog di jaay samay qualité. Mhm. wala may jaay samay savon. Mhm. wala may ngay ambiance. wala may ambiance. wala may social su ma bëggee ambiance maanaam ambiance bi damay def ci kër gi deuxième maison laay def. fii suñu kër waaw xam na. xanaa suñu biir kër gi. musique du fi tàkk. ay jàng fi tàkk. journée. ndeysaan borom kër gi moo xam ne ñu ngi baatal ko ñu xam. Mm-hmm. ñu koo xam ne xamuñ ko. Mm-hmm. mais n'empêche foofu la seen xel tool. Mm-hmm. mais harcèlement bi mooy di dégg baatu caga. di nga dégg kii ana ay mbokkam. ak giwin. day tox day naan. di nga dégg baatu mandikat la day tux day naan. kii lesbienne la kii nangam la kii sangam la. wóoru leen de. sénégalais bu amoon ci man tey preuve du ma fanaan mhm. sénégalais bu ñu amoon ci man preuve bu ñu téye seen loxo bii jaari barki Cheikh Al Khalifa Malick sama yaakaar du ma fanaan duñ ma mooy mais lu waral loolu seen xalaat la ok parce que xam nga tax gisuñu Soda Samb ci lenn mhm. donc dañuy créer Soda Samb ci dara dëgg la nit boo ko gisul ci dara da nga koy baasal ci dara mhm. man gis ma ci benn mumbaay sama ambiance bopp laa gisuma ci benn réunion gisuma ci benn tuur. Mhm. gisuma ci benn natt. bokkoo ci natt yi bokk ma ci lenn. ah ma dégg ñu ne bokk nga ci natt millions yi. millions yi. millions yi natt. jaar yi man bokk ma natt xam nga laa bokk. ba teggee woon nga di million ah. waaw ah, xool ah, soo de man ma dégg di la laaj nga ah, ma. yooyu dëgg la de dama ko dégg di la laaj de. dee naa ci nga jënd ay marchandises. nga ni di voyager. ah man dama sàkki 10 millions laa déggoon mais dangaa la dama. Mm, teggi de laa dëgg. socc bi sax déggoon naa ko mais boobu am problème tegg bi après dama dama ko dégg. mais damaa teggi 10 millions. waaw. ah allah mais bi nga déggee comme ni nga waxee sànq yaa dugg foofu sax ñu ne da nga sàcc 10 millions loolu bi nga ko déggee nan nga nan nan nga ko dundee sooda. nu ma la defee ay ree mais tuuma boobu. tuuma tuuma lan lay def ci yow Soda. tuuma weddi du ragal c'est ça sa mm-hmm. mais am na yoo xamante ne man du ma ko weddi. ok parce que amul sens ça sonne pas dans l'oreille. Mm-hmm. Soda Samb bu sàcc 10 millions dem man toog ma ne di live ni ko neexee. waaw ki ma sàcc de. man dinaa la sàcc 10 millions jaar nii jënd sama bol ak sama tànk bu dem gàddu sama beek jubale aéroport. ah xanaa waa aéroport moom dara duñ ma contrôlé. mais defu la dara ñu la waxee léegi. defu ma dara damaa reetaan xaqataay toog contrôlé sama ambiance ki ma sàcc man ko maa fay. mais ki la ko waxal xam nga ko. xaw ndax man sama laayoob lañ ko bind xam nga ay xar lañ. Mhm. dama ko ñëpp du ñëpp nag mais sénégalais euh, ay xar lañ. bu mhm. kenn benn commentaire. Mhm. ñëpp loolu la ñuy gëm dëgg la bu waxee loolu baax. ñëpp dañ naan da nga baax. Mhm. bu ñu la waxee lu bon ñëpp dañ ci répété wu. Mhm. ma gis plus de vingt commentaires. Mhm. ñuy wax benn wax bi dama sàkk dix millions dem toog Mali le fait commentaire doon bari moo tax ma répondre ci ki ma sàkk dix millions ko te ñàkk fay ma la sàkk te sama live te mënoo ma fekk fi ma nekk sàkk du dóor bu ma bëgg a dem jox la sa xaalis. ki ma sàkk dix millions ma su ma doon sàkk du ma sàkk sama ndaw yooyu. te du ma dem toog Mali Mali bu dëgg kii. macha allah. Mali mhm. euh, yaa ngi koy wax sànq seen kër musique du fa tàkk. sa maam gis naa ko xam naa nu mu mel taabi Cheikh la macha allah sa papa même chose mais loolu est-ce que des fois day yo dina yomb ci ñoom ñuy dégg yenn yi ci sooda sooda moo def lii sooda moo def laa ak relation bi nga am ak ñoom. bon quant à sa mais du ñàkk ku sob benn jaare bu ko woo téléphone ne ko allo dégg nga kii lu mu def samay sama côté papa laa gën a jubóo mhm. ñoom ma yar macha allah mais mbaa ni sama famille sama famille sama côté papa noonu samay côté mhm. mhm. dama lay suivre ci loolu macha allah suñu borom dama koy sant ci loolu. Mhm. ñaari famille yi ma dénk yëpp du ci kenn benn famille du ci kenn ku compliqué. Mhm. ku may compliqué la vie. Mhm. sama maam parfois day ma goro moom mu laa gudd vocal ay vocal comme ni mu. comme su ma bëggee vocal bi gaaw dama ma bëgg a tontu daal laay tontu su ma koy mais n'empêche ñoom xam nañ ki ñu jur. Mhm. moo tax dara du leen dara du leen du leen du leen du leen ci man quoi. parce que mhm. xam nañ ki ñu jur. Mhm. xam nañ ki ñu jur donc lu baree baree baree baree baree du ma ci xalaat. ndax man jaari tout le temps dama naan soo la sàmm lu fee ay xeetu guddi seen biir kër la ko defee. bu seen laa kër bu ñu lépp lu garaaw. lu dama ko njëkk a def suñu biir suñu waa kër gis maanaam li ngay def nëbbuloo ko seen waa kër ok. xaw ma benn. mais parfois ñu ñu mer ba ne la bàyyil tok wala wala wala dara parce que parfois du ñàkk comme ni ma ko waxee. même même bu ok. Khady Samb. Uh-huh. mus na sonn ci wax gi. Uh-huh. ay dëkkandoo Malika. duñu raté sama live ma koy nuyu sama bàjjen yëpp. Uh-huh. di nuyu sama bàjjen Ndeye Anta Khady. Malika la ko dalee woon. seen seen ay dëkkandoo am ñëwoon ko sama vidéo. ça lui a fait mal mu vocal wax a wax bay jooy na ma bàyyi mais expliqué ko dëppal ko teg wan wan ko carrément li xew. Mm-hmm. après mu jeex ñu jàll ci leneen. Mm-hmm. mais à part ça musuma am problème mu baal TikTok ci sama famille. Mm-hmm. non non non au contraire sama famille yëpp damay soutenir. muy sama papa. muy sama jabaru papa muy sama maam muy samay bàjjan. muy samay rakk muy samay tante. macha allah parce que ku nekk li la indi TikTok. macha allah sa relation ak sa maam. lu neex relation boo xamante ne nii comme mun naa ne comme jëkkër ak jabar <laughs> comme comme ak jabar parce que dépassé nañ man ak moom doom ak yaay. Mhm. parce que comme ni ma koy waxee tout temps rek sama maam bay sama papa. muy mhm. sama yaay. muy mhm. sama maam. muy sama xarit. li ñuy xuloo nag moo ëpp li ñuy juboo mais duñ jàppante ndeysaan ndax maay xolam ndax mhm. ñu naan ay sama bokk na si dix millions ah, kontaane laa am <laughs> te mooy kontaane boo ko bëgg a yóbbu wee euh, euh, fii màkk fees ah nga bëgg a yóbbu sa sa maam taalibe Cheikh la nga ndik kontaane uh-huh. mën naa mën naa ko wax sama maam ku ma bëgg la mhm. man maa ko raw Mm-hmm. sa maam c'est ma vie. ndeysaan. sa mm-hmm. mm-hmm. relation sa papa. Mbaye sama far la. <laughs> sa papa. sama far la. j'ai une bonne papa sama xarit la. ndeysaan. sama papa sama xarit la te man maay taaw te taaw dafa neex voilà maay taawam sama morom la man sama papa su ma ko présenté dañu naan juróom. dëgg la. moo présenté sama papa nga naan kii di sa papa. loolu moo ko moom jur maay mhm. différence d'âge bu bari donc mhm. moo tax macha allah moog jabaram. Mhm. samay doomu macha allah am nga relation bu baax ak sa. maam am nga relation bu baax say bàjjan say tant et tout mais des fois di nga toog sa yaay manqué la sooda yaay mooy lépp jaare nga amee ñaata at la sa yaay génn àdduna. sama yaay di gaañu yaakaar naa maa ngi am ay 13 ans. ok sama yaay bi may gaañu maa ngi am ay 13 ans xaw ma 12 ans sama yaay 2011 la gaañu. mottu ko sax ndeysaan yaay bi may gaañu defe naa maa ngi am ay 11 ans. ndeysaan. su ko juddu ma. Mhm. sama yaay 2011 la gaañu. may mhm. gaañu maa ngi am ay 11 ans yooyu 12 ans. Mhm. voilà donc. daf may manqué. Mhm. <coughs> ci yan moment la lay gën a manqué. sama yaay moment bi bokk na ci moment bu ma soxlawee ku ma conseillé wala ku ma waxal. wala soo xamante ne nii dinaa toj ci sa kaw jooy yuuxu. Mhm. day toll que parfois ça t'arrive nga jékki-jékki toog bëgg a yuuxu. waaw ça parfois nga ni doy na. Mhm. ça suffit. doy na quoi. parce que même gàddu boobu daal a Mm-hmm. même si tu es comblé d'amour. bu mm-hmm. ma dee gis sama maam bu ma dee gis samay papa. ma dee mm-hmm. gis samay bàjjan. samay tante samay nijaay samay rakk yaay day manqué toujours doom. moment yi may gën a gën a gën a gën a marqué nag bokk na ci moment bu ma njëkk saa di gis sama maam ak ay doom comment ils prennent soin de ses enfants. tafa da ngay am benn kii booy am quoi. Mm-hmm. parce que xam ne carrément ne yow lii dootoo ko amati. waaw ah. impossible. benn la ah, yaay du ñaar. Mm-hmm. tout le temps ñu koy wax kenn kese la. ban souvenir nga ñu nga ñu mën a wax si yow moom ban souvenir boo xam ne fàttaliku nga ko yéen ñaar. souvenir bu dee tànn la nag boobu ndax sama yaay bu jógee woon vacances sama yaay nekkoon Sénégal. Mm-hmm. daa jógee vacances ñëw. indi ay ba indi ay baax quoi ay ba mhm. ay bagage am di di di dajji ma sàkk ci benn baawu cuir mhm. jóge aslem ñoo ñibbi si sol ko ci kër gi dem jàngi mhm. sama yaay ñëwaat bu ci biir ba caare aslem ba caare nga jël si baa bi rek comme man ni ma rambaxam ne sama yaay man maa ko a yàlla ko yàlla yërëm ñoo yemoon ci lépp moment bu ma neexoon la ak euh, moment bi mu ñëwee ñu war a ànd dem ci xaadim kase boobu nekk xale bu ndaw ñu war a dem mu war ma ñawal su may def tabaski parce que comme comme man sama yaay bi muy dugg jaar yi mm. sama anniversaire yëpp heure bu anniversaire damay sol si séeré que la petite star mm. ma doon yére su may jàngi par la force oblige talon laay sol mu su jàngi sol carax sama yaay bu mu ko dana ko teeloon a wax suñu waa kër. ndeysaan. donc juste elle me manque daal ku ma namm la. Mm-hmm. ku namm la ba bëgguma di sori si ay mbiram parce que yaay bu jàmbaare woon. Mm-hmm. yaay bu bëggoon njaboot. yaay mm-hmm. amoon yermande. yaay bu amoon jom. yaay boo xam ne bàyyiwul ñu xas. macha allah muy man di sama rak. li ci des man sama yoon nekk ci mais man yaay ma jur mhm. naa ne bàyyi lu ma xas. Mhm. parce que yar la yaay ju amoon ngor la yaay ju amoon yërmande ci doomu aadama. Mhm. yaay boo xamante ne nii lu mu am bokk na ko ay waajuram bokk na ko ak jàmbur yi. ndeysaan. ba di ba mu gaañoo boo demee HLM xale góoru HLM yëpp asu junni lañ ko doon woowee. ndeysaan. sama yaay ku mu romb cinq la lay may. macha allah raison pour laquelle sama sama xaritu nijaay yëpp doon ko woowee asu junni. c'est une perte koo xamante ni elle était spécialiste. Mhm. torop sax. macha allah donc juste rek ñi nga xamante ni ñoo ngi am seen yaay. wala yaay yi nga xamante ni ñoo ngi am seen doom yi dañuy bàyyi xel li ñuy wax doomu jàmbur yi. Mhm. ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax. Mhm. am na parole yoo xam ne day des. c'est ci nit. ça joue. parce que dañuy gis ni nit bu waxee ba saaga la rek dañuy gis ni yow automatiquement da ngay réagir. damay mer dama naan tout temps chaque fois samay commenté dañ naan ma ni laa duñ si noonu nga bàyyi saaga man la ma ko bu ma wax nañ bàyyi tooñ. Mhm. jaar ko ma saaga xam qu'est-ce que ça fait. Mhm. ñoom mënuñu koo xam gis mhm. soo sama yaay donc doo ma saaga ndey ba pare bëgg ci génne noonu ku ma saaga ma fayu. ak koo mënti ka doon tele laay waxee mag nga naw nga meer nga xale nga ku ma saaga nday ma fay seen yaay yi gënul sama yaay gerte du yow def ñu lu tax yàlla bàyyi leen fi yóbbu ko aussi mm-hmm. ñoom liggéey ñu lu tax yàlla yóbbu suñu yaay bàyyi fi bàyyi leen fi ñoom dëgg la donc dañuy xool yenn ñi yëkkati di ko teg doomu aadama yi mm-hmm. bu ñu amoon ndey buy dund bu la sa yaay làkkee dóor dóor ma man. làkk doom dóor doom. Mhm. dina ñaar làkk ma fayu. ma ko kon man may fayu sama bopp. Mhm. que ma ëpp. Mhm. donc nekk sama karam ma c'est tout. macha allah euh, lan ngay conseiller ñi nga xamante ne nii seen waajur yi ñu ngi dund. nga xam ne seen yaay yi ñu ngi dund nan nga leen di conseiller ñoom. ñi nga xamante ne seen yaay yi ñu ngi dund. parce que man jaaree tool mu mm-hmm. koy waxee rek. baay baay ñëpp la. mais mm-hmm. yaay yaay kenn mm-hmm. moo koy jur. ku mën a teel sa yaay teel benn kasa de bu ñuy dund nag nekk ci suñu jeunesse mënuñu ko xam mais yaay amul remplaçant. amul morom te ñaanu yaay lu ko waa jëndee jar na ko. man li ma gën a rékku sama àdduna nga xamante ne bu ma ko yàlla mënoon mayaat daf ma koy mayaat mooy sama yaay lekk ci sama ñàkk man cent franc sama yaay fekkoo sama dara mm-hmm. sama dara asugu jaay bi fekkee sama dara jox na ma lépp lu di jox doomu dama ma ko dara mais ñaan yi rek ma ko dara donc képp koo xamante ne yaa ngi am sa yaay muy dund teel yaay amul moroom jaare yaay du borom boo amee sa benn joxal sa yaay toog boo amee ñaar jaafi bi xol yaay boo amee ñett nga jox ñaari yaay jox benn bu papa c'est très important leen bu baax a baax a baax yaay dafa neex yéen ñu ngeen xamante ne yéen ñaam seen yaay muy dugg profitoo leen ci bu baax a baax a baax baax bu baax. parce que des fois saa tarif nga liggéey ba indi sa xaalis sax mais doo si bëgg dara. ba nga jaar papa ma te xaalis waaw mais gàllankoor maa xaalis kat bu ma ci def dara bu saraxee sama yaay soow neex na ci li may joxee sama maam muy kontaan di ma ñaanal su ma soo noonu laa joxee sama papa yaay <laughs> su ma laa joxee sama yaay. merci. ma joxee sama maam di ma mm-hmm. ma soo am mm-hmm. la. dañ ko ci sant bu baax a baax parce que moom nañu gën a faible. moom mm-hmm. nañu ko teg ba pare di ñu jox xol bu ñu ko mënee. c'est vrai mais ñu mm-hmm. même bu dee dañuy en silence man jaaree bi bi jooyee ba kenn du ko xam. Mm-hmm. ma jëlee si complet d'amour. am naa papa bu ma bëgg am naa jabar papa bu ma bëgg am naa maam bu ma bëgg am naa ay bàjjen ma bëgg mais yaay daf may manqué. c'est normal. c'est normal mën naa toog jooy te ma paree la. donc teew koo xam ne am ok merci beaucoup Soda bëgguma la téye lu yàgg parce laa xol bi tooy na mhm. man mii sax sama xol mu ngi commencé tooy parce que ku ne xam na ne ñàkk waajur moom dafa metti ñu ngi lay remercier bu baax di la jaajëfal tax nga tàggatoo ak internet yi. kon naa bon naa ngi déglu encore maa ngi gërëm ñëpp ah di leen tàggu yee ñëpp di gërëm sama maam sama papa sama jabaru papa bi si kër gi hmm, sama rako papa sama rakk yi ñoom samay bàjjan samay nijaay mënuma lim ñëpp di gërëm taa aada dikkam bébé daba ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm comme ni ma ko waxee di gërëm képp koo xamante ne nii yaa ngi bëgg solo samb et que di leen wax ni leen àdduna amul solo kon nañu yéenante ñun ñëpp jàmm mhm. nañu bëggante mhm. nañu bàyyi xel yi ñuy yëkkati di ko tekki doomu doomu aadama te xamuñu la mhm. nañ bàyyi du juger doomu aadama bi sans connaître son histoire ni la rapprocher pour bien pour ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñëpp jàmm ok voilà ok merci beaucoup Soda Samb voilà euh, loolu la leen indiloo ñu àndoon ci ak Soda Samb ñu leen di remercier di leen jaajëfal beneen yoon merci beaucoup